APR fas yéene soobu ci geer bu metti fii ci dëkk bu sell bi ci Touba war fee wër ñaar fukki junniy signature ak juróom-benn loolu li aju ci parrainage bi nga xamante ne nii njiitu réew mi di Macky Sall moom moo ko fësal ci réew bu Sénégal te ñu wate woon loi bi ci assemblée nationale moom Cheikh Abdou Bali Mbacké mi nga xam ni jamono ji moo nekk ci bopp parti bi ne jamono ji ñu ngi xool bu baax a baax fi ñuy teg seen tànk ba mën a am ndam ci li nga xam ne nii moom la ñu dëgmal. ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo dajaloo nekk xam ne kat lii ñu sumb ñoom bu ñu àndee nekk benn xajuñu ci ndax ku ñëw fii tey boo xoolee di nga xam ne ñii lu ñu song danañ moo tax dañu kon ne liggéey loolu incha am nañ yaakaar ci ne li ñu bëgg ko def bi ñu ko laajee moom Cheikh Abdou Bali bi nga xam ne nii amoon na ci seen fii ci dëkk bu sell bi ci Touba ma ngay fësal ne mbooleem ngànnaay yoo xam ne nii yëkkati woon nañu ko ci seen biir ànd nañu suul ko ngir ñu daal di mën a am ndam ci li nga xam ne nii moom moo jëm ci wàllu parrainage bi kon ñoom ñëpp aussi moo tax moom bu jógee ne man maa soxla kenn ku nekk denc la nga xamante ni bi xaj na moo la doon dëngale wala moo doon jaxase ak sa morom ñëpp denc loolu ñu ànd retrouver wu donc autour de sa personne ngir mën a am ndam li nga xamante ni bi am nañ ko tey ci tëjte la moom Cheikh Abdou Bari Mbacké ma ngay fësal ne bopp parti bi mi ngi laaj ci ñoom ñaar fukki junni si ñaar ci rak juróom benn waaye jamono ji fas yéene ñëw fàggandiku lu ko ëpp ngir mu daal di mën a yóbbu président Macky Sall ci élection njiitam réew mi ci atum 2019 euh, ñoom 26000 la ñu wax mais 26 mille yi ñun li nga xamante ne bii mooy suñu yéene ak li ñu bëgg te ci la ñuy liggéey danañu danañu yóbbu loo xamante ne incha ci ab fàttali mboolem ci ab fàttali mboolem jongante yi nga xam ne ni APR ma ngi koy suubu ak ay naataangoom fii ci dëkk bu sell bi ji Touba daanaka yëpp da caa nërmeelu dañ ko caa gañe loolu le nag tax ñoom ñi de ñu fa yéene jël seeni matukaay bu baax a baax.